jërëjëf jëf mbokk wasaare làmb wasaare TV maa ngi leen di nuyu fi ma leen daan nuyoo ah ñëw fii tey Parcelles seet si xale boo xamante ni daa bokk ci làmb marqué ay empreinte am ñu koy wax Baye Djily koo xamante ni bi mu dugg see ci làmb yàggul waaye marqué nañ ci empreinte def na ci la nga xamante ni nii képp kuy seetaan wasaare làmb soo xoolee Baye Djily soxoo dina sedd tey nag ñoo fekk si ko feefam bërëpam fii di nga xamante ni mooy Parcelles Assainies mu ñu wa waxtaan ci làmb wa waxtaan ci moom wa waxtaan ci li nga xamante ni moo ko duggoo ci làmb kenn ku ne xam ne làmb fi mu toll nii taxaw na te et doxatul waaye moom teewul ba tey bàyyiwul moo ngi dox ci làmb di ci wax ay ay ay jaloore ah boobaak léegi yàggul waaye marqué na ci empreinte am xale bu am jom la bëgg li muy def tamit tey ñëw seet su ko waxtaan ak moom ci làmb lu bay bay euh, kàggu ñu dox seeti seeti bàyyi ji ah tey dafa mel ni tey ci gétt gi lañ ko fekk waaye waxtaan ak moom léegi dafa mel ni dafa transhumé léegi jaaykatu xar la nañ dox seeti ko <laughs> yaa yaa daa mel ni dama laa bett de. waaw bëri caaxaan quoi. waaw waaw loo def fii. daa mel ni jaaykatu xar nga de. waaw instant yi ma bàyyi jaaykatu xar laa ba tabaski bi paase. Ah. comme jaay xar dafa xew moom damay jaay quoi. tey ñu ñëw fekk la fii fekk la ci gétt gi. gétt gi moom mooy bergerie dégg naa. benn booy mu am fii mooy Espagne fee mooy Maroc. waaw fii mooy bergerie tribunal bi. tribunal bi parce que koñ bi ñëpp a dajaloo. ku ci nekk indi sa xar. ñu booloo ñun ñëpp wax dëgg ku nekk di jaay. ngir am loo xamante ni da koy mën a yóbbu sa kër mais commando moo baare fii tuddee fii Espagne fee mu tuddee la Maroc xar yi des fois dañuy bëtt frontière mais gétt gi ni ma ko gisee dafa mel ni ku fi ñëw di nga am li nga bëgg ak nu sa poos mën a toll waaw wax dëgg parce que xam nga dañoo jógee ci feebar dëkk bi ñëpp àdduna bi yëpp waral affaire yi laal leen moo waral xam nga rek dañ ci dañ koy woyefal quoi lépp lu waaye am rek boo ñëwee incha allah di nga am xar bu soobee ñu gis ne gétt gi bëri na am na xar yu mag am na xar yu ndaw bi ma ñëwee ànd ak sama cameraman bi sax dafa ne moom moom day gàddu benn yóbbu bu ñuy ñibbi <laughs> kàggu kàggu daa bëgg lu yomb nee na day yenu rek yóbbu waaw d'accord amul problème bu ñëwee rek ma jox ko kàggu moom balaa dem dinaa ko wutal bu baax baax baax ñu nuyuwaat la parce que ñii seetaan xàmmee nañ la te xam nañ la tamit ñu bëggoon xam Baye Djily lan moo ko dugal ci liggéey bi muy liggéey Ouzin maa lay fay loolu lañu ñu waroon njëkkee. Mhm. nuyu képp kuy seetaan wasaare làmb am kontante bu baax a baax a baax ak mbégte. Mhm. Euh, sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waaju sant suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy Cheikh Ahmadul Bamba Xaadim Rasul mhm. di ñaanal suñu maam de Cheikh Saliou yàlla saa borom yokk leeram te tax ñu ci barkeem waaw li nga wax moom jili moom moo nekk benn xale boo xamante ni. Euh, mu ngi juddoo Pikine ginnaaw raay quartier bu ñu naan quartier Daouda Fam Daaru Salaam 2 euh, loo xamante ni mosuma ko wax ginnaaw raay gi ma dëkk ma ma honorable député Maam Jaara Fam euh, baayam Baay Daouda Fam moo ma jàpp ci loxoom tudd ma dëkk fi ñu dëkkoon ginnaaw raay moom moo nekkoon suñu chef de quartier ma nekk fa à l'âge de treize ans laa jóge foofu sama papa indi ma parcelle ma fiy jàng métier doon def métier bu ñu naan tailleur yàgg naa ci nag def naa ci ay fan wax dëgg nekk ci di ñaw di ñaw di ñaw di ñaw ba yàlla suñu borom dugal ma ci site bi di wasaare làmb ma ñëw fi nag fekk fi vraiment. naka nga ci duggee parce que dafa mel ni dafa mel ni tailleur nga doon def jékki-jékki dugg ci métier journalisme naka nga ci duggee. non c'est-à-dire que affaire bi ni ma ci duggee mooy Ouzin lu garaaw man damaa nekk amateuru làmb. bëgg làmb di dund làmb làmb fépp fu mu nekk rek Sénégal bokk naa ci ñi fa dem seetaani dem naa ci journée yu ne événement yu mag yu ne dem naa fa di duggoon ci làmb yi di dugg ci XFM may nuyu buur géwal di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam lool te mu ànd ak wér euh, déggal père kii euh, nu mu tudd ma koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam lool te mu ànd ak wér euh, buur géwal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moom it dama daan dugg ci émission am di woote di waxtaan bu baax a baax nekkoon supporter ay yenn mbër di leen supporter ku ci mel ni Zos nga xamante ni sama mbër la woon dama ko daan supporter ba yàlla def na bi mu bàyyee làmb vraiment waaw bi mu bàyyee làmb laa xam ne amatuma mbër ndax vraiment fi mu toll nii boo duggee ci site internet ne ci di liggéey cër bi danga koy jox ñëpp rek wasaare na ni ma fa duggee mooy damaa toog benn jour yàlla suñu borom boole ma ma xamante kenn koo xamante yàgg na ci man muy Cheikh Bodian. Cheikh moo jékki-jékki nekkoon. moom la ñuy Iran Ndaw. Iran Ndaw moom la ñuy kaañoo naan ko Iran Ndaw. Iran moo doon def wasaare religion. moom tamit fa la nekkoon di liggéey mu ngi fa di def liggéey bi mucc ay fan xam nga rek ak activité yeeg loolu moo tax religion bi fi mu toll nii dañoo wàññi lu bëree bëri. Cheikh nekk fa di liggéey vraiment euh, baabu woo ko mu koy nuyu au ñuy waxtaan ñoom ñaar mu ne paate suñu DG bi nekk Maris ne ko am naa koo xamante ni ku bëgg làmb la mais boo ko indee ci làmb ji dina leen dina leen mën a apporter dara quoi. Mhm. paate ne ko noo man làmb moom xaw ma ci dara mais dinaa leen boole kilifa gu mag gi. dama jékki-jékki rek kilifa gu mag gi woote ñu waxtaan man ak moom dama bëggoon nga jàpp ci ñu ànd liggéey parce que gis naa man ko ah vraiment liggéey presse moom doon na loo xamante ni xëy na nit ki moom ku xamoon fi ngay tekkee dangay dem rek xaar fa sab tekki waaw ndax yàlla suñu borom moom moo naan nit ki moom yàlla day tracé ba pare ne fii ngay jaar nga mën fa jaar am dara looloo ma ci dimbali ma ñëw am na ci ñoo xamante ne fa lañ ma fekk mais am na ci ñoo xamante ne fa laa leen fekk waaw mais am na ñoo xamante ne fekk naa leen fa yàlla suñu borom dogal ñoom ñu jógee fa am na ñoo xamante ne fa lañ ma fekk mais ma ñu doon équipe boo xamante ni ay xale yu am jom ñoo fa nekk xale yu bëgg liggéey xale yoo xamante ni heure bu nekk ñu ngi sur le terrain di ko ñàkkante fu làmb am ñu dem Fatick ñoo joor Diofior ah Fimela fépp foo xamante ne làmb li traditionnel mu ngi fa am wasaare làmb dem na ngir ngir dégtal ko askan wi malgré mën nañu bokk nañ ci site yi mujjee juddu mhm. mais ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ni concurrence bu seen la quoi ñu ngi koy teg ci yoon di ko liggéey te Ousseyn dafa am loo xamante ni site internet dañ ko war a changer. Mhm. muy mbubb bi nga xamante ni doo ko solal sa bopp bul ko solal sa nawle parce que tey da gis benn sit internet ñu ne ci làmb ñu ñëpp di liggéey nga ni site internet nga da ngay liggéey hmm. nga xëy bindal mbër loo xamante ni tey gàcce la ci képp ku ku bokk ci làmb te loolu amul ma joxe ci benn image comme armée bu benn baraak mës nañ jékki-jékki rek dégg benn armée agressé na rek ñu ne non armée bu benn baraak moo agressé benn nit. ba tëj la nga ciy liggéey liggéey bu sell bi loolu amee yow lañ njëkk a gis ci koo xamante ne dem nga tàlloo ko loxo mu démentir loolu tamit. si parce que dama ko yëg. te boo xamee nit ak ni mu mel ci làmb malgré que am armée xaw ma ko làmb tax ma xam ko. Mhm. ci làmb lañ xamante ne mais da nga koy xool xam ne kii nit ku baax la. am na loo xamante ni du seen jëf te duñ ko doxee. ba ma gisee loolu mu am dama jël sama téléphone woo armée mu sonné man ko armée li ma dégg nu mu mën a demee noonu mu ne ma bàyyi jili man maa ngi nii entraîné entrainement laa jóge jëm sama kër gars yi mooy loolu. Mm-hmm. ma woo Bas Bas ñëw ñu ànd déplacé wu dem fi ñu koy fekk ñu fekk ko fi mu nekk moom ak ay naataangoom ñu jël ko mais xam nga site internet dafa doon loo xamante dañuy liggéey mais léegi bari na loo xamante ne bu ko site yi defee rek dañ naa noo waxuñu dëgg. parce que li ñuy tiitre yëpp mala majeure partie bi da ngay dégg ñaan non lii du dëgg te loolu war nañ ko daw. lépp bëgg alal wala bëgg xaalis wala bëgg benn koom-koom waaw bëgg àdduna bi yëpp du la seetaan du tax nga yàq doomu jàmbur pour dund ci loolu tey wax ji mën na mën na laal ñenn ñi mën na bañ a laal leen ñeen ñi mais danga koy xool ku mu nekkoon sa waajur wala mu nekk sa mag wala mu nekk sa rakk doo ko bindal loolu kon bul ko bindal keneen te bëri na image yoo xamante ne dafa ñaaw ci làmb te site internet yi dañ koy génnee te loolu dafa ñaaw dañ ko waruñu ko génnee am na image yoo xamante ni dafa ñaaw ci làmb waruñu ko mën a génne ndax ñun ñëpp benn la tey boo demee euh, làmb gis reporter yi ni ñuy dajale waaw ñun ñëpp mm-hmm. da ngay xam ne ñun ñëpp benn lañ et puis dangay xam ni daal àdduna amul solo ku ci nekk da ngay liggéey rek pour organe bi nga nekk mu jóg jëm ca kaw jëm ca kanam mais du loo xamante ni ay ay dañuy concurrent wala dañuy reyante wala déedéet askan bi ñooy àtte nañu liggéey dugal ci suñu site askan bi xool ñoom ñooy àtte quoi ñoom ñooy xool ne ah site bi vraiment bi mu duggee ci ci làmb ba léegi ku yokkul yaa wàññi mais ñoom ñu ngi yokk jëm ci kaw man tey li may li may gën a bëgg mooy mbër yi nga xamante ni kenn xamu leen kenn xamu leen ma dem fekk leen fi ñu dëkk seen kër ma jëli leen ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom ba àdduna bi yëpp gis leen bu ëllëgee bu ñu doonee champion bu nit di coow ci làmb ñeme naa wax ni bokk naa ci ñu ko génnee parce que Modou rëcc na ma Balla rëcc na ma Eumeu seen rëcc na ma Bombardier rëcc na ma euh, nu mu tuddati ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum rëcc nañ ma ci làmb ñi nga xamante ni nag tolloon naa ak ñoom te ak ñoom même génération lañ damay dem ci ñooñu jël leen wan ko Sénégal ba ñëpp gis leen Père Bécaye ma koy nuyu yal na yàlla guddal fanam loolu tama ànd ak wér image bi mu demoon di jëli Balla Gaye këram ñu mm-hmm. wane ko muy sëlmu te image boobu boo ko comparé image yu démb Balla gay ak Balla gay mi nga xam ni ça fait kon nga xam ne Père Bécaye liggéey na ci carrière Balla Gaye lu am solo liggéey na ko ci Modou Lo liggéey na ko ci Tapha Tine te làmb noonu la war a mën a demee noonu la war a mën a demee Ousseyn. gis ngeen noonu lay demee bàyyi jiili moo daan dem di seeti mbër yi waaye tey mën maa ko ñëw seet si jël si ko ñu waxtaan ci làmb bàyyi jiili dégg naa wax ji wax ji rafet na wax ji rafet na bëgg nit ñi gis la wala bëgg nit ñi seetaan la wowul tax ngay waxal nit ki la nga xamante ni nii da koy mettre mal à l'aise ak nit ñi mettre ko mal à ak famem du yoon bëgg nit ñi seetaan war nga teg lépp ci yoon ndax ëllëg boo soxlaa nit ki bëgg koo seeti mu ubbil la ay buntam loolu day rafet trop mais ñu gis la nga nekkoon supporteru mbër nga jékki-jékki jóge ci loolu war a wàcc sur le terrain ñoo di fekk mbër di jëflante ak ñoom maanaam di leen jëli di waxtaan ak ñoom bi nga ci wàccee sa première émission nga tourné ko ba ñibbisi wala boog bu fekk le plein tournage boobu bi nga paree lan nga lan nga yëg wala boog lan xalaat waaw wasaare bi ma fa demee sama première tournage <laughs> maa ko tourné ak Abou Niasse moo lay wan ne abu Niasse men bu Langsar moom laa njëkk a tourné sama émission ma àndoo ceeg Paate ñu dem jëli ko ñu dem ba Langsar jëli ko mhm. vraiment bi ñu demee ma jël ko ñu tourné waxtaan ma nag moom ñëw ñu bari ndeysaan fu ne appel jóge fa ñu apprécier ji li non liggéey bi rafet na bari na ci ñoo xamante ne dañ ma doon laaj ba xam daan nga daan nga ko def avant man ko déedéet xëy na yàlla suñu borom moo ko tudd rek ma dem fa mais vraiment ma dem def ak Abou Niasse émission boo xamante ni du ma ko fàtte ma jóge ci ba tey maa ngi nii di di di ci bay suma waar di ci def tey nga dem seeti kii. bi nga bi nga tourné émission ba noppi bi nga paree hmm. xalaatuloo nga reculer bàyyi wala boog da nga ci gën a am confiance pour gën a xuus si biir. non Ouzin gis nga àdduna boo duggee ci dara amoo ci gëm-gëm rek jarul nga ciy dugg bu yaboo rek nga bàyyi. Hmm. man bi ma ciy dugg. la fait li ma gëmoon gëm-gëm bi ma am mooy man bis bu ma bu ma wasaaree nangulee ma liggéey ñu ubbil ma seeni bunt may ma opportunité yi waral ma liggéey ma liggéey liggéey boo xamante ni ñëpp dinañ xam wasaare te képp ku fa sa wërsëg nekk dinaa la indi wasaare ngir ñu liggéey mais vraiment yàlla suñu borom mu ngi ma ciy suturaal ba ni ma ko bëggee maa ngi ko maa ngi koy amee noonu wasaare wax dëgg kenn sono lu ñu ci dara vraiment ñu ngi koy liggéey comme niñ ko bëggee et ñu ngi ciy def ay jéego ñu ngi am ay ñoo xamante ni ñu ngi ñuy dooleel di ñu jàppale comme ki nga xamante ne suñu suñu gàtt bi de suñu DG bu gàtt bi. <laughs> waaye dégg naa da koy bañ. <laughs> suñu DG bu gàtt bi sëñ Basirou borom bëgg bëgg taar bi nga xam ne jëfewu ko. maa ngi nuyu bu baax a baax jëfewu ko jëfewu ko parce que Bas. mais fan yi nag dégg naa sonn trop xel mi day voyager de. la waaye yàlla yàlla dolli sutura. li nga xamante ni euh, mën nañ ko dégtal askan bi après dinañ ko dégtal. bu neexee yàlla wax wasaare ci li mu nekk. li waral ngeen nag mais loolu dañ ciy taxaw seetlu ndax gis nañ lu ci bëri fan yi dafa taxaw wasaa dugg lu vidéo mm. kenn gisatu leen xam mm. xamee leen te wala boo fan yi da ngeen di noos temps yi dégg naa ngeen am xaalis waaw loolu yëpp ñu ngi waajal askan wi loo xamante ne bis bu ñu leen ko indilee mm-hmm. ngeen xam ni kat wasaare mi wax dëgg tëdd di nelaw waaw tëdd ñu nelaw te bëgg nañu romb du site internet li site internet di nekkee rek dem kër Ousin jëli ko interview ñëw dugal ko askan wi seetaan ko ñun dañoo bëgg a indi leneen loo xamante ni tey site internet daaw ko def wala seen xel yeggu fa. Mhm. wala yeggoon nañ fa amuñu bunt boobu yàlla suñu borom kàttal na ñu def ko. looloo waral ñu gëj ñoo gis looloo waral ñu gëj a gis image yi looloo waral ñu tënku nekkaat ci suñu biir di liggéey. ku ci nekk yaa ngi nekk ci sa ruq am loo xamante ne yaa ngi koy bay muy sa nga koy def ngir bëgg rien que askan wi bëgg na Ouzin askan wi bu ñu bëggee rek. Sénégal bëgg rek àdduna bi bëgg rek ñun dañuy. kontaan nañ nañ ndax romb tey yoroo ñaari dërëm sa poos nga romb tey gis géer bu mel ni maître Alsane Ka mu ne la jiili nga ñëw mu làbb waaw mu ñëw làbbal làbbal la ñaar téeméer jox la donc koy euh, dafay dafay sedd sa xol tey tey comme lii ma sol nii sama benn grand fii la ma fekk ma toog mu laay mu jékki-jékki woo ma ma ñëw mu génnee ko def ci mbuus may ma ko mooy waral xam nga rek boo naree teggi sa tànk sax dangay ngay gën a ñafe mais ñuy wax askan wi nañ ñu gën a xaaraat rek wasaare làmb ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ak doole incha allah ci wasaare gépp nag moo xam muy làmb société religion lépp luy wasaare rek wasaare TV dinañ la ko indil incha allahu rabbi ba ngeen kontaan ba yëg seen bopp. waxtaan ak moom. làmb <laughs> làmb da ngay dem dangay dem. bàyyi ji <laughs> kenn ku ne xam na ni da ngay dem làmb jëli mbër. combat jot nga dem reporté bi nga demee reportage sa premier reportage nga dem làmb reporté ko ñibbisi war a toog ñu dugal ko nga woo ko seetaan bi nga ko seetaanee lan la la def parce que am na loo xamante ni tamit loo mosul def tamit nga def ko toog di seetaanaat sa bopp bi nga dellu si di seetaan loolu naka la la def bàyyi jiri <laughs> kontaan Ouzin kontaan parce que su ma juumul euh, làmb ji ma njëkk a tamit du ma ko fàtte dafa dox ci diggante Petit Baboy ak euh, BMW stade Diom Iba Mar Diop suñu papa sëñ Modou Niang moo ko tëggoon. moom it ñu koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam lool. Euh, ñu bëre ñoom ñaar ñu bëre combat bu neex boo xamante ni euh, BMW dafa daan Petit Baboy ak manière. Petit Baboy moo ëpp masse boo xoolee moo moo a ëpp volume moo moo moo gën a taxaw mais BMW dafa nekk mbër moo xamante ni amul masse. mais dafa am doole force intérieure la am. bi arbitre ñoom ñaar bi ñuy bëree ñu ngi léew léewtoo muy teg tànk di di def dem gauche droite mais bi mu ko jàppee daf ko caxabal caxabal boo xamante ni sama xol dafa sedd parce que man làmb mbër bu daan rek yow laa faral. Mhm. ku daanu faralu ma la. man ku daan rek jour boobu yow laay faral parce que man damaa bëgg ndam man damaa bëgg mbër moo xamante ne Ouzin boo dugg see ci làmb. duñ na taabale ana mbër mi. yaa ngi koy def yaa ngi koy def jikkoy Sénégal la jikkoy euh, Sénégal Sénégal xamul perte. gagnant rek waaw sama grand maître Assane Ka loolu la doon làmb ju amoon rek dimanche bu jot bu génnee rek daal duma nit. ñu ne ko ah yow lu tax loolu yow chaque jour rek nga ni duma nit mu daan. waaw moom ñëpp ku daan mbëram nga. léegi bëre ñoom ñaar bëre combat bi daan ko mu neex ma yuuxu boobu maa ngi ànd ak bas ma ne ko oh oh, oh BMW daan na ko mais BMW ci biir daan bi dafa indi mbooloo mu bari Ousseyn mbooloo moo xamante ni mënoon na bëree ay grand combat grand combat ma ne sëñ Bass ay baas ak siège nit mën na koo luye waaye ay nit kenn mun leen a luye ndax nit fu ñu dem ñoo fa yóbbu seen bopp BMW lii nii mbooloo mi ko topp xamoon naa ni nii la mën a demee mu nekk mbër mu mën a bëre mais Ouzin jour boobu mooy sama jour bi nga xamante ni wàcc naa stade Jom Iba Mar Diop mhm. reporté fa loolu du ma ko fàtte moom loolu moom bokk na ci archive yoo xamante ni du ma ko fàtte ba mukk mukk mukk mukk mais yàlla def nga diggu ci làmb ah nit ñi apprécier la seen bopp bëgg la seen bopp ba mbër mu nekk bëgg na baa jili dégg ko micro wala dégg ko caméra mu waxtaan ak moom loolu noonu lan la lan la yëg boo am ci ñoom la wala ouvert la boo xamante ni nii yaa leen ko ji lan la dara nekk taalibe xam nga Ouzin damay wax chaque jour wax boo xamante ni damay dëkkati di ko wax ñun dara rëyul ci ñun te ñun ay taalibe lañ te amul lenn loo xamante ni mun nañ koo ñoddi wala mun nañ ko won àddina bi ndax lu nit di yootu pour jot ci rek sa moroom nee na siw bëgg cee jot te jotu ci mbër yi samay xarit la ñëpp mbër yi ndaw yi ñëpp mbër yu mag yi ñëpp sumay xarit la ñu ci bari damay déggante ak ñoom aw ma sens interdit ci benn mbër tey dinaa la fekk nga taxaw ma fekk la nga nekk ci moment boo xamante ni sax xam naa ni kii nekkul parce que comme ni ko mbëri defee kii nekkul mais damay ñëw ruube la dugg bëgg a waxtaan mais lépp lu may waxtaan yow du la forcer pour jël la du ma la forcer pour nga wax la fait nga bëgg wax ak man rek dama lay ubbi sama bunt ngir ñu wax mais comme ñëw tey gis Balla Gaye de daw bëgg bëgg ko forcer mu wax te bëggul wax man duma def loolu. Mhm. ni may gisee nii xale laa mais ku am fulla laa ci sama bopp ku am fayda laa ci sama bopp ku am lu may bañ laa parce que tamit nit ki doone dama nekk ci dara di liggéey rek bañuma dara. fu laa jaay daxaa sax nag waaw loolu loolu dafa am si loolu dafa leer <laughs> loolu dafa leer moo tax xam nga rek da bëgg lu ci bëree baree baree bëri da koy mën a def ñoom muy mbër yëpp maman loo ñuy xoolee lan la su ko defee dañuy mën a liggéey liggéey liggéey bu seen mais duñu taxaw duñu taxaw benn arrêt kàggu nañ dem seetaani combat ñagas ak caatuwaalo ndax combat dafa am lu bëri loo xamante ni nii dama ko ci yëg ndax làmb jooju mën ak moom la woon ñoo ko reporté mu nekk làmb ju neex joo xamante ni nii lañ ca wax commencement ba ak lañ ca reporté defe naa ne noonu la caatuwaala bëree combat boobu ba terminé ko à beauté daan ki nga xamante ni moo ñagas daan ko ci ak manière nag nañ dem xool loolu te ñëwaat. moo la woon ginnaaw ngemboo ngembul la ko si caatuwaala moom ngeen jàkkaar lool Ousseyn arbitre bi sifflé na. waaw bàyyi ji xale yaa ngi noonu ci digg géew bi ñagas booy xool moo ñu woon ginnaaw caatuwaala moom lañ jàkkaar lool arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak abi baa ngi ay jugeem Baye Djily arbitre bi sifflé na Baye Djily arbitre bi sifflé na samedi 29 février 2020 allo ñaga sokkaas na sànni góos ñoom ñaar seen combat ñaata wala jël na tànk ba lu ma la waxoon da koy daan daan na ko daan na ko la ñagos doon daw am na dañ ko ëppale ñagos doon daw am na ay dañ ko ëppale ñaata wala daan na dafa daw jël tànk wundeeloog moom xam nga ban combat bi la ma jox Zoss Papa Sow nii la ko daane woon ngeen noonu la demee caatu waalo ak ñagas ak noonu làmb ju neex la làmb jooju dafa bokk ci yoo xamante ni man dafa maa neex que dañoo bëre teg ko ci yoon axe bi may wax noonu bi mu fa jëlee da koo tourné dëjoog moom làmb ju neex a ngi noonu Baye Djili ci diggante caatu waalo ak ñagas ma ak yow ñu def ci liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la Baye Djili hmm, Ousseyn caatu waalo ak ñagas mbokk yi gis ngeen ni làmb ji demee man ñagas mi ma xamoon hmm. ak ñagas mi ma gis mu bëre caatu waalo man gisatuma ñagas ci làmb xaw ma fu ñagas nekk xawma lan moo ko teree bëre xaw ma ci lu ñagas nekk waaye war na xoolaat boppam. parce que ñagas mi bëre woon ak Pape Cambrène. ñagas mi bëre woon ak yenn ndaanaani ci làmb nga xam ne loxo bi ñëpp dañ ko daan daw. ñagas léegi mënatul xeex mënatul bëre wa ñu nag xamuñu lan moo waral ñagas kenn mënatoo ko gi mais. est-ce que ku dafa découragé ci làmb tamit. waaw mais làmb ku découragé Ousseyn da ngay bàyyi làmb moom mënoo cee nekk sport laa laa la wax sport bu munti doon. boo découragé noo bàyyil génnal jaar ci porte bu mag nga bàyyi ñoo xam ne kii kat bëggoon na mais dafa bàyyi ngir lan découragé na yaakaarul ni war na mën a te ñagas damaa gisul lu waral muy découragé ci làmb parce que ñagas xale la ñagas am na taay bi am na gabari mbër bi te mën na bëre ñagas mën na xeex ñagas léegi lan mooy problème am moom ñagas làmb nag sport làmb moom dafa doon sport boo xamante ne da ngay sérieux làmb moom boo sérieux wul mënoo koo def ay damay entraîner entraînement kenn du ci naxaate kenn Père Maxime Bargane da koy wax dama koy nuyu au passage damaa liggéey damaa liggéey bëri wax la di wax rek mais ku sumee ko ñu xam ba xam liggéey nga te yow ñaari mbër buñ ci digg géew Ouzin doo bëre takkoo ngemb mais xam nga ban mbër moo gën a liggéey ñun dañuy toog sax ñaari mbër dugg ci biir géew bi nga kii moom làmb ji kii moo ko moom parce que li waral mooy da gis état de forme bi muy indi nga xam ne des fois mbër daan mbër du la bett dëgg la parce que da ngay xam ne lii bettu ñoom ñaar ñiy bëre tey kii moo dàq bëre malgré que moo ëpp volume moo ëpp doole mais kii moo dàq bëre te bu ñu bëree ñoom ñaar kii doole bi mu yor mun naa yëngal kële caatu euh, waalo mu nekk mbër moo xamante ni moom it nañ ko bàyyi xel. dafa sérieux ci li am sérieux na day concentré ci làmbam am na gëm-gëm te écurie waalo bi mu nekk am nañ ci moom yaakaar keroog bi muy ñëw ñëpp ñëw ànd ak moom encadré ko jàppale ko moom mu gëmoon ni day daan ñagas. moo tax bi mu ko daanee ñun la jaaxal mais jaaxalu ko moom Caatu Waalo moom fi mu teg bëtam du ñagas moom jàpp na ni moom ci làmb euh, fi mbër yu mag yi nekk ak ñi téye làmb moom Caatu war na faa mën a yegg te làmb noonu la làmb gëm-gëm la rek Balla Gaye gëm-gëm a tax mu doon roi des arènes Modou bi muy dugg ci làmb ñu ci bari waxoon nañ ñu du dem gëm-gëm moo tax mu doon roi des arènes Siteu fii mu yegg si ci làmb gëm-gëm moo ko fi indi lu leer ndax bi muy ñëw ci làmb da ñëpp boo xam dañuy ree comédien lañ jàppe woon Siteu pour ñoom Siteu du def dara ci làmb gis nga Siteu ku la waxoon Siteu dina dinañ ko tëgg stade Diop stade Demba Diop mook Zos mu dóor Zos mu daanu doo ko gëm sa mbër mi waaw mu dóor boobu noo ko dundee bi bi Siteu dóoree Zos mu daanu affaire bi ay ree la ma def ay daaj la ma def <laughs> parce que man mënu ma woon comprendre ne Siteu war na mën a dóor Zos mu daanu gëw ma ko woon parce que man gëm naa ne nag vraiment am na benn bëre bu ma doon gis ci Siteu gëm naa ne bu ñu bëree ñoom ñaar mën na daan sos mais Zos dafa doon koo xamante ne dafa am caay-caay yu bëre Zos nga ëpp ko doole taxul nga daan ko. Zos nga dàq ko bëre nga daan ko Zos faw nga am caay-caay boo xamante ne dafa ne ci moom. dalay réer nga yaakaar concentré wul ci combat bi te fekk mu ngi ci biir làmbam. mais keroog dafa dafa ñëw de euh, bàyyeeg làmb ji si te si te wane ni xale la boo xamante ne dafay yéeg ñu bëre mu dugg ci ak sam dóor ko gauche mu répondre mu dóor ko droite mu daanu. mais keroog moom jour boobu vraiment jour boobu nag laa xam ne moom jeex na moom. parce na jour boobu nga xam ne jeex na. Zos dafa bëree woon na nga xamante ne waroo ko bëree. parce que man am na leen loo xamante ni xaw naa ko cee gis. xaw ma nag ba xam yow loolu nga constaté mu déet Zos est-ce que ni mu bëree jour boobu làmb ji est-ce que noonu la woon bëree moom Zos. non Zos parewul woon. parewul woon lan mystiquement physiquement. parewul ci dara. Zos bi muy bëree si te parewul ci dara. Ah, loolu yaa ngi ñeme wax. billaay boo am Zos parewul ci dara. Zos parewul ci entraînement. Zoss parewul ci techniquement parewul physiquement Zoss parewul ci dara bi mu sumee ko même mystiquement Zoss parewul. loolu la gis nga xam ne Zoss mi bëree guy gi bu njëkk ba. Mhm. ku mu bëree woon Zoss mi bëree Tidiane Faye Zoss mu bëree Boy Niang bu maintenir woon loolu ci làmb kenn mënu koo daan Zoss mi bëree euh, Issa Pouye Zoss làmb ju mu bëgg a gañe da koy gañe. kon moom tamit est-ce que nekkul li daal ñagas moom tamit koo xawoon daal. non daa doyal daa doyal ci làmb Zoss làmb ko bëgg mais bëggul làmb. Zoss làmb du du loo xamante ni daf cee ñëwoon rek pour gañ gañ payam la doon récupérer yu mel noonu mais Zoss làmb du sport boo xamante ni da koy dund à cent cent Zoss dundul mbër boo gisee hors side bu dul làmb ku war a bëre suba la làmb mu ñëw toog fii ci bopp koñ bi teg rek soo am. kon yooyu lay def waaw di lekk naan ay mbër su ma ko jàppee dinaa ko dóor ba muy bëgg a dee di loolu moo lay wan ne ndeysaan dundul dundul loolu dundul loolu moo tax instant yi comme bàyyi na Euh, mu ngi waat ci leneen ñu ngi koy ñaanal ci lépp lu mu nekk rek yàlla na ko ci yàlla defal ndam yàlla defal ko ci lu kawe njortam waaw parce que mu ngi nekk ci ay don de sang vraiment di di di di ci jàppale réewam mhm. ngay wane ni nit moom fépp foo nekk fekk fa mbaax loo am ci mbaax rek foofu nga koy yóbbu. boo ko yokkul sax nag ko wax dëgg wax dëgg moo tax képp koo xamante ni mbër la rek nañuy xalaat comme Zoss ni muy def ci làmb ñoom it ñu jéem a def loolu jàppale seen réew vraiment àdduna bi dox sa Sénégal loolu moo ko yor ñun ñëpp ku ci nekk dañoo war a wane suñu bopp wàll woo nekk rek nga liggéeyal ci sa réew ba bu ëllëgee doo am gàcce mais fi nga dëkk tamit surtout du ñu am gàcce.